yemoog alxamis fukki fan ak ñett ci weeru juillet ci atum 2023 muy ndigal loo xam ne joxe na ko boole ko ay ñeenti kuréel yi muy togg bi xam si ñu ngi koy amal ci tokkoorub Serigne Cheikh muy wilaya ba faatixul bi si safinatul amal ak ñaari guddi ndak ñaari guddi Dakar mbokk yi kon bu ko defee ñun lañ fas yéenee àndal ci biir waañ bi xaalu safiun li sarfi anhum basari wa ragbati an sawil insaani fil bashari xaalu safiyun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safin wa fi kadari xaalu safiyun li xubbi xaaliqi maliki walam akun lil baraaya astaki darari قالوا سفيه لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لخفي نهج مرجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Wilaya TV ñu ngi leen di siyaar bu baax te di leen doole siyaar bu baax a baax ci bés bu tedd bi nga xam ne si ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko digle ñu àndoon ko ne yéen daaw jéeg àndal ko mooy troisième fois ñu rafet lu baax a baax ànd bi xam si ne suñu borom boole nañu ko te bi dem na ba jur leneen loo xam ne si ne am na xameel am na am na cofeel te loolu suñu borom mi nga xam ne si ne moom moo ñu ko boolee ndigali moom bi ko Cheikh Mouhamadul Mountakha joxee rek lañ jot ñu ànd ko waa wilaaye ak euh, samit amaan kayre mbay ak ñaari guddi ndakaaru yi di ci nos di ci nocc ba dañoo dem maanaam liggéey bi sax dañ ko miin miin goo xam ne si ne ndax loo xam ne si ne def nga ko trois fois yaakaar naa boo ci dikkaatee di nga xam bu baax fi nga jaar ba niñ ko àndee woon daaw jéeg àndaat ko daaw ànd ko ren jii noonu lañ ko àndee di ko di ko di ko liggéeyee te te liggéey bi ñu sas mooy ñu doon féete ci wàllu restauration ah, di daar mu Fatima Bisri ñu ànd ko restauration wilaya ànd ko restauration Safinatoul Aman ànd ko restauration ah, ñaari guddi Ndakaaru liggéey boobu nag nga xam si ne moom la ñuy dénk muy liggéey muy jëm ci wàllu xewal yooyu xam si ne seen a yóbbu ca mbaar ma ñi nga nekk nii di ko di di am solo liggéey bi fu mu toll nii daanaka ñu ngi cappaandaw ye maanaam mat na li xam si ne moom doon def nga xam ne fi toll nii oto bi ñëw ñu jël xewli yi yóbbu ko fas yéene ko jébbal doomu aadama yi sëñ Cheikh Mamadou Mountakha ko xam maanaam xanaa dañ ko ñaanal suñu borom yàggal ko suñu kanam loolu may ko fan gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram tawfiq ak xibaar saxaatu daare ni wér ak la rek loo xam ne ne digal ko rek njariñ yëpp la rawatina taalibe yi kon ko ñun moom lañu àndal na xam ne moom ci mbégte ci ne si ne moom moom lay ne si ak ëllëg mi ngi ci yàlla ni yàlla suñu borom wasaare ji yëpp yëpp yëpp suñu borom wàcc fi ndoxam jàmm ak salaam tawfiq ak daare ni wér ak la képp koo xam si andi fi jàngoor yàlla na ki suñu borom saafara képp ko xam si ne andi nga fi tawat yàlla na suñu borom saafara képp ko xam si ne andi nga fi jeexi jaax àdduna àllaaxira suñu borom jàppandal lépp ak Seexul Xadiim euh, salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba nu sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra euh, noo ngi siyaar sëñ euh, Muntaxa Basiir mu yàgg fi te wér sëñ Modou Mbend Fall ak Ahmadul Maxtaar jël nag nayoo bi ak cent yëpp jaarale ko ci jëwriñam ju tedd ju mag ja sëriñ Ousmane Mbakke Gaynde Fatma mu jàllaleel ni ko ci mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo bokk liggéeyub euh, Tóokër bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex barke Seex mu al Karim ndax liggéey bi nga xam ne moom loolu nu sant kat tawféex yi jaam yi rek la ci jublu tawféex boo xam ne bii da ko yéene jaam yàlla yi rek loolu la ci jublu nu wëlbate ko santaat it euh, waa wilaya bii nga xam ne danoo bokk ak ñoom liggéey bi ci ndigalul Sëriñ Muntaxa seen jëwriñ ju màggee di sama sëriñ sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma lëkkalenu nu bokk ñun ñaari guddi Ndakaaru ci ndigalul jëwriñ Baye ñu nga jeng ak ñi mu àndal nu bokk liggéey bi sant ci yàlla bu baax kontaan ci tey ñaan sëriñ bi jàppal nu liggéey bi moom mi nga xam ne lu mu jàpp ci mu jàppal nu liggéey bi ba moom fa mu ko bëgg a yóbbu mu yóbbul ko fa boppam barke sëriñ Touba ak Cheikh Ibra barke mu Moussa Mbacke sant nañu nag bu baax yéen ñu ngi leen di ñaanal ndax ñaan yi du mën a ñàkk ay ndaw yoo xam ne nii dañoo jël seen tànk teg ko ci liggéeyal yàlla ak yonent bi sëriñ bi ku mel noonu boo ko gisee sant ko gërëm ko ñaanal ko sama mbokki taalibe yi nga xam ne it ñoo jóge ci ay barab yu fasante ko ñii jógee buntu Pikine Pakku Lambaay bokk ci kuréelu ñaari guddi Ndakaaru ñii jógee Grand Dakar ñii jógee Grand Yoff ñii jógee Medina fu nekk nit jóge fa ñoo itam da doon jaadu ñu sant leen gërëm leen di ci jël kenn koo xam ne kii mooy sëñ jiili mii di nga xam ne waajuram Baye Kalsaan Dieng mooy waajuram topp ci Baye Ndiouga Dieng mi nga xam ne mooy président daayira bi moom it dañ koy beral cantuk boppam ak sëñ Kalsaan Alsaan mii nga xam ne moo jiite mook Pape Diouf ñoo jiitee liggéey bee nga xam ne moo ne ci buntu pikin nu bokk ko muy daayira yoo xam ne nii dañoo jaxasoo seey ci ñaari guddi Ndakaaru doon fédération ci ndigalal sëñ Mountakha Basir ni munoo waxee ne yéen ak ñëpp a ko bokk ñaari guddi Ndakaaru sëñ Mountakha daf ñu wax ne yéen ak ñëpp ko bokk fexe leen ko yaatal da ngeen xam ne du yéen dong ko moom yaatal leen ko képp ku ngeen njortu Serigne Touba nangeen ngeen yegg ci moom ngeen jotal ko ndigal li te xam ne yéen ak ñëpp a ko bokk. wëlbate ku jël ab taawam Serigne Kosso maam Thierno di taawam boole ko ak ñun mu nekk président d'honneur jiite mbooloo mi moog Baye Ndiouga Dieng loola tawféex la joo xam ne ji wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla sant ci yonent bi sant ci Serigne Touba sant ci seex Cheikh Ibra di wàccee kàddu gi foofu xam ne it comme da ngeen ne ci yitte di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd bu baax jërë ngeen jëf. xasaayidi min mujizaatil muntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haaja qasaayidi ya qalba kulli man lahu saadatan walin qaadal aman